na xam ñi ñu ko yónni ci ñoom ndax xam luy seen baax waaye xamit luy seen ayib te it mu yëg ci ñoom li gën a garaaw moo di doomu aadama ju rëy waaw ndax rëy bu dee rëyu fitra dafa bare coono ndax rëyu protocole amul solo mooy rëyu tubaab tubaab li moo rëy yépp comédie rek la protocole la xam na ni rëyul moo la ko gën a xam ndax bu seetloo caay-caay gi ci moom maaj beeg drapeau yeeg avion yeeg bateau yi du tee bu tëddee xam ni say-say piir la kooku rëyu protocole la mi rëyu fitra moo yées mooy kidul kenn te defe ni moo gën ñëpp waaw rëyu fitra moo bon te arab daf leen dal rëyu fitra la ñu am fitratallahi allati fatara nnaasa alayha ngir diine ñoom ci kibriya lañ ko jëme waaw dañu rëy rëyu rëyu deret rëyu xol rëyu jikko moom la arab def te lu rëy lal rek yàqu na waaw rawatina rëyu rëyu fitra ndigim tubaab yi rëyu protocole tax ñu jaam sëggal ñépp war leen rëyu protocole moo tax ñu sëggal ñépp war leen seen ba mu jur seen première guerre mondiale jur seen deuxième guerre mondiale te bu ñu delluwul gannaaw dina jur seen troisième guerre mondiale adduna bi jóge fi tukki waaw rëyu protocole rek la mi rëyu fitra nag moo gën a soof mooy ki nga nekkal ci kër gi mu ni noo bokk deret waaw kii gënuma noo bokk deret yàlla na dee waaw kooku mooy rëyu fitra waaw walla kii sama wujj la noo bokk jëkkër kii yàlla na dee waaw waaw walla kii ñoo bokk service gis nga ñu def ko directeur man ñu def ma adjoint kii yàlla na dee kooku mooy rëyu fitra waaw dindi ko moo gën a jafe ci àdduna parce que ki muy dal dafa dul rëy xel xel ma du rëy te nag mën nga jubal ku ne gannaaw borom xel mu gàtt waaw looloo taxoon yonent bi sonn gis nga keroog bi iblis jëlee ay dëbësam iblis bés bi mu jëlee ay dëbësam tàggu yàlla waaw waaw jël walisam jël kaalaam ak satalaam ni ni yàlla ma nga dem mbokk comme soxlaatuloo ma ci sa biir kër waaw yàlla boole ñëwan ak jéppi ni ko wama laka an tatakaddara fiha yow itam waruloo ma woon woon lu rëy waaw yërëm ko bëggu ko dabaatal te fekk décision bi dem na ba noppi waaw mu mu mu wax ko lu lu lu tax nga woon ma rëy mu metti ko moom yàlla ndax dafa xam ni mu yàgge këram ak la mu fa def wa ma laka an tatakabbara fiha yàlla jaaxle na ndax bëggul kii yàgg fi def lu ne taxan fi bale ci biir kër gi bay ci tool yi ganale gan yi def lu nekk benn bëccëg mu def ci benn minute lu tax ñu boole ko bagage am yëpp di génne et metti na ma man yàlla waaye da nga juum lu tax nga woon ma rëy lu tax nga woon ma rëy parce que man kenn duma woon rëy kenn duma ko wan eh, pexe amul pexe amul jàmm ak jàmm waaw pexe amul loolu moo taxoon li arab yi gënoon saxal ci seen bopp la yonent bi jëkk wax ni mënul nekk la fadla li arabiyin ala ajami loolu la ñuy jëkk tëral yéen arab daal defe ngeen ni kudul arab arab a ko gën kaay leen nu dindi ko bëccëgu tey waaw ni yàlla binde arab la binde ñi ci des kon nag maa ngi dogal bëccëgu tey ni ki gën a baax moo gën ak fu mu dëkk waaw ak fu mu dëkk xam nga arab seen rëy àggoon na ci borom kër du tuur ndox mukk njabootam gis ko lu muy wàññi tuur ndox du bàkkaar yenn niku la du bakkaar mais àggoon nañ ci rëy borom kër jonkan di tuur ndox nit gis ko ak ku ko rey la yemale yonent bee ko dindi moo daan def bu nekkee ci pénc ba bëgg a tuur ndox ni ñaadam ñaadam ñetti tànk ñépp di ko gis mu àgg suuf tuur ndox mu jeex ba ñu xam ni du bakkaar du mooy yàlla dafa ànd ak nit boo ko dindi xanaa bu ko rusul moom keneen du ko rus àgg nañ ci bu ñu bëggee dem gannaaw kër dañuy doxa doxa doxa dox ba mel ni ku jëm si bi xotaan waaw waaw ngir rus ku leen gis eh loolu yépp yépp yépp ci seen biir rëy rekk la duggoon ba tax na yonent bi li ko yàlla yónni bare woon coono ndax ñamu dajeel dañoo amoon rëyu fitra te mu bëgg mu deñ yàlla dimbile na ko nag ba mu deñ waaw waaye ci jëfandiku rekk nag waaw ndax ki nga ni mooy sa wujj ñoom yonent bi moo doon seen wujj ki nga ni mooy sa mbokk yonent bi moo doon seen mbokk ki ñu ne moom la ñu xëccool yonent bi la ñu doon xëccool yi nga ruus yépp yi nga ruus yépp ngir boo ci def ci bëtu nit ñi nit ñi bàyyi la dana ko def ci bëtu nit ñi te keroog lañ ko gën a sopp waaw waaye bu dee yow nag ñëpp bàyyi la waaye bu dee moom nag ñëpp def ko waaw bu dee moom rek ñëpp def ko waaw di leen toroxal nag di leen toroxal te du ko wax waaw ndax dañu bañoon nit ku ñuul dañu bañ nit ku ñuul defe ni yàlla daf ko bind rek pour caaxaan waaw nit ku ñuul du kenn waaw bu ko defee bilal di ñëw di nit ku ñuul mu gis ñu xaañ ko deret ji di génn ci jébi yonent bi dal di jóg fi mu toog ñu ko kay mu ñëw mu dal di muucu deret ji waaw ñépp a ngi toog mu muucu deret ji ba mu set mu fompal ko ko ak lafu mbubbam waaw bàyyi ko mu dem yooyu moo mujj toroxal arab yi ba xamatuñu fu ñu jëm waaw ba mu ñàkkee ndey mu wut ndeyi dara ndeyi arab yépp nekk fa mu wàcc leen fa dem jëli ummu ayman muy nit ku ñuul di baramu di nit ku ñuul mu ni mooy ndeyi daaram ummu ayman ummi baada ummi waaw waaw mujj pexe amatul waaw ndax boo dee jaay ker ba jant di bëgg a so da nga wàññi sa njëg waaw moo tax yonent bi wax nii nee naa naasu kulluhum halka illa al alimoon nee na mën na waat ni nit ñëpp daañu alko ñëpp lu dul ñañu taxawu ba ñu xàmme nee na nit ñëpp daañu alku waat na ko lu dul ñañu taxawu ba ñu xàmme nee na wal aalimuuna kulluhum halka illa al aamiluun nee na ñañu taxaw ba ñu xàmme it mi ngi waat ni ñoom ñëpp daañu alku lu dul ña nga xam ne la ñu xàmme jéem nañu jóg pour appliquer ko nee na wala amiloona sax kulluhum halka illa al muxlisun nee na mi ngi waat sax ni ña jóg pour appliquer ko ñépp daañu alku lu dul ña nga xam ni yàlla rekk a tax ñu di ko appliquer waaye seen ciru bopp taxul tur wuñ ca am taxul luñ leen ca ormaale taxul yàlla rekk a tax ñu di ko def te nee na sax wal muxlisuuna ala xatarin adim wala ci cunkóor la ñu taxaw nee na ña sellal pour yàlla sax ci cunkóor la ñu taxaw ndax jant soogul kenn xamul daañu juubu ci diggante bi wala koor gi dana mat waaw moo tax ci cunkóor la ñu taxaw ah waaw moo tax Cheikh El Hadj Malick moom yaram wi neexul man mooy sama sëriñ waaw te sëriñ Babacar itam mayoon na ma ko ndax dama gimmi rek sopp ko waaw dama gimmi rek sopp Cheikh El Hadj Malick ka ma ca dimbale nag mooy sëriñ Alioune Gueye yal na yàlla fay ko yiw waaw wax na ci benn woyam moom Cheikh El Hadj Malick nee na àjjana neex na ndax noflaay gu amul fu muy àkke ji moo fa am nee na kon neex na waaye nee na noflaay googu am na ci àdduna waaw nee na noflaay googu am na ci àdduna nee na ndax boo demee ba farata rekk a tax ngay jóg te farata dara mettiwu ci léppam dafa neex nee na noflaay ga ca àjjana ñëw na ci àdduna ñu sonn ñépp lu dul farataa leen sonn ku bëgg lu ne nga ne ca te dara du ca farata doo noppalu doo noppalu ku bëgg lu ne nga ne ca te dara du ca farata billaay yaa ngi ci jahannam waaw waaw waaye koo xam ni loo jëkk farata la te farata dafa neex ci ruux neex ci xol yaa ngi ci aljanna waaw nee na itam am na lu am aljanna moo di doy lu gudul jeex waaw poos bu fees bu dul widd mukk ne moo am aljanna xanaa ca la woomal yem nee na am na fii ñu ni ko na mu na muy demee mu ni ki dul jënd lu dul lu mu soxla kooku omal na ba faw waaye koo xam ni lu mu gis nit ñi jënd ko mu jënd ko nee na ci ñàkk lay dëkk ba faw loolu sonnal ñépp jënd loo soxlawul rey na ñépp waaw journal bee la koy wax ni la boo demee kër sàngam nangam jafa ama fay gën rajo bi soowal la ko télévision bi noonu nit ko ko jënd te bëgg nga nga rëylal ko ko ñëw bu ko defee nga ne mayit naa jóg nga dem jënd ko indi ci kër gi mu di la xool nga di ko xool mu dox ñetti fañ ne karaj doo xam koo koy joxi mu la jël la ci biir kër gi léeg-léeg mu fakkatal la soxla woo ko woon loo ci doon jënd waaw nee na itam àjjana am na sécurité wóolu sécurité mooy wóolu waaw nee na wóolu ku amul fu mu yem Cheikh El Hadj Malick nee na àjjana la am nee na waaye it am na àdduna ñu ni ko mooy lan ci àdduna mu ne koo xam ni bu ñu nee dana matt ak du matt du jox loxoom waaw mu jeex takk xamuloo ni bu ñu nee dana matt ak du matt nga bañ ko jox sa loxo mucc nga waaw ñoom fitna yépp fekk lu ñoo werante dina matt ak du matt ñu jox ko seen loxo moo leen teg fitna waaw ndax bu fekk boo ko fekkee moom màtte nag mara day tali waaw ah waaw mu ni it xam nga poubelle poubelle yi ñoo teg ci buntu kër di ci def mbalit nee na boo bëggee sa buntu kër niru buntu këru aljanna bu mu fa bare bu mu fa bare loolu di nga ko mën a dégg ci la mu njëkk a wax ku yem ci sa soxla kër say poubelle du am solo jàmmi kër mi ngi ci yem ca bëgg-bëggu kër ga musibam kër mi ngi ci jéggi bëgg-bëggu kër ga dafa bareel poubelle rek waaye du yokk daraja waaw du yokk daraja nee na kon nag sa xool yii àjjana xaar la nga am ko fii am ko fële nee na gedd leen ñoom ñaar nag bu la neexee nga am yàlla waaw xamuloo ni yi ngay sonn ci àdduna yépp mu wax la ko àjjana ngay wut moom nga bëgg kooku sa affaire la waaye tudduloo yàlla àjjana ngay wut man nga ko am mook àdduna yépp boole leen waaye geddal àdduna ak àjjana am yàlla yàlla moom ku ko ni àjjana laa soxla rek mu jox la ko waaye du la jox boppam nag bale laa jox boppam nga gedd àjjana ni ko soxlawuma ko yow laa soxla waaw loolu yàgg naa am ki ci kër gi di lekk ci añu borom kër gi di naan ci añu borom kër gi fekk soxlawul borom kër gi duñu ko yóbbu mu ziyaare ko mukk yàlla it boo soxla ajjanaam mu jox la ajjanaam di la xool moom daal boo ko soxlawul doo ko gis mu mel na kon nag ci wàllu lislaam dafa di pas-pas boo xam ni dafa yëkkati nit te du ko boole ak rëy gis nga rëy ak fayda bokkul al kibur ak al iffa bokkuñu rëy moo bon wante fayda ayul pas-pas bi ci lislaam nag kenn mënu ci nekk ba noppi te amuloo fayda mënul nekk waaye nag Sëriñ Babacar Si daf daan wax ni nee na sa ngëneel sa ngëneel nee na bu ko nit ñi gaaw a xam waaw nee na sa ngëneel bu ko nit ñi gaaw a xam ndax itam nee na bokk na ci aada nit ñi sa ngëneel bu fekkee da nga di nitu fayda daañu la tudde nitu fayda nga dem ca ni nitu fayda nga ba wax ba ñu la koy wax conditionné la dootul nekk jikko xanaa da nga ci bëgg a dëggal waxu nit ñi su boobaa nag dootul nekk ngëneel caricature rek lay nekk waaw diwa fi yëpp fayda diwa fi yëpp fayda diwa fi yëpp fayda ba mujj foo dajeeg moom mu bokk mbubb ya di waaxu waaw nga xam ni fayda ca jeex na takk waaw nga xam ni fayda ca jeex na takk nit ñee def noonu oto ñu mëta wattu lañu sa ngëneel bu ñu ko gaaw a xam mukk waaw bu ñu ko xamee di la ko tagg di la ko tagg di la ko tagg bu mujj ngay dellu gannaaw di dellu gannaaw bu mujj moom la ñu tuddee taxwilul fadilati ila radila waaw lu mat a bàyyi xel diw fépp fayda diw fépp fayda ba mujj foo dajeeg moom muy waaxu na ku ñu xañ waaw bëgg rek dëggal ni nitu fayda la booba nag nit ñi la sédd séddatul boppam waaw ba tax na jikko mi ngi mel na benn appareil bu tuuti ni ki ko tubaab yi di defee di ko nëbb ci barab fa ñu ko nëbb fu mu jëm ñu xam fu mu toll tubaab ji dinañ ko di jëfandikoo wala ñu wannuloo la dara la ñu la wannuloo di ci mën a gis li xew ci sa biir yépp jikko it noonu la mere ci yàlla waaw ci lay natt nit ki fu mu toll ca lañu ko sant yëguloo ko mais sa jikko ci lañ lay natte appareil la bu nekk ci sa biir ña nga xam ni sa dund moo lay moo leen yitteel te moo tax ñu bàyyi leen fa ñu ne foo toll ñu nga xam fa nga toll moo tax lu nit mën mën nëbb bu amee jikko bu baax balaa jikki ñépp xam ko lu nit mën mën nëbb bu amee jikko bu bon lu mu ko nëbb nëbb njabootam balaa jikki dégg ko ca marché kooku yàllaa ko warlu waaw moo ko warlu du nëbb mukk jikko wa mahma takun wa mahma takun wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin ولو خالها تخفى على الناس تعلمي آه. مم. kooku yàlla ko warlu yàlla moom moo tax moom rek doy na ci moom rek doy na ci wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin ولو خالها تخفى على الناس تعلمي waaw nee na nit lu mu nëbb nëbb jikkoom bés la koy dégg ca marché ba na ko ko yàllaa ko warlu waaw moo tax Cheikh Alhaj Malik radiallahu taala anhu daan na ko wax daan na wax nii nit néegam la am dafay góor góorlu nag bokku ñëw ca néeg ba indaale fa jikko ju bokkul ak jañu ko sant nee na na fexe ba bu koo kay dellu yóbbaale ko lu am solo la ci wàllu tarbiya lu am solo la ki ñëw indaale jikkoom dem yóbbaale ko lu am solo la waaye ki indi jikkoom wàccal la ko fi mu yàq sa jikko yow yow yaay kan yow yaay kan loo doon wut kër mëtuloo ko loo doon wut néeg mëtuloo ko loo doon nekk boroom kër mëtuloo ko bu fekkee sa rëddu kër jikko bi nga bëgg keneen dina indi bu ko safaanoo bàyyi ko fi loo doon wutee kër génnal ci mbedd mi génnal ci mbedd mi boroom kër mooy ki nga xam ni ku indi jikko bu bokkul ak ba ñu ko dénk daa ko yóbbaale waaw moom la Cheikh Hadj Malick wax moo tax Serigne Babacar wax na ko waxin wu neex ah dafa am ku ko laaj ni ko seytaane nu mu mel waaw seytaane nu mu mel mu ni ko ah dina sol mbaseñ bu ñu gome de di lekk ceebu jën waaw te loolu mooy kenn ku ne sa xaritay say seytaane kenn ku ne sa xaritay say seytaane waaw ndax boo ko dégloo ci safaan def safaan kon nag seytaane dina sol mbubu basañ di lekk ci bi jël waaw ah ñuy muslu muslu muslu muslu muslu ah nu yàlla musal ci seytaane nu yàlla musal ci seytaane nu yàlla musal ci seytaane fekk sa xarit nga war a muslu ci moom waaw seytaane gaañu la sa xarit la gaañ wallaay wallaay moo tax wolof di léeb ni ki ñu yar piir mën na jaxasoog ñépp te kenn du yàq jikko waaw ki ñu yar piir mën na jaxasoog ñépp te kenn du yàq jikko waaw waaw loolu wolof am na lu mu ko léebe nee na bukki su dabee ponkal nee na ca doxin wala waaw ca doxin wala oto ñu ni ah waaw yow li nga def nag ah seytaane ma man de seytaane ma man de waaw seytaane ma man de yàlla ni seytaane yaa ko ëpp doole inna kayda seytaani kaana daifan waa ji yow itam ah inna kayda seytaani kaana daifan amul solo ci ku xam doomu aadama ak yitteem pas-pasam seytaane mënalul nit dara yàlla wax na ko ah dama dama yëpp doole seytaane amul benn werante moo tax bu demee bàyyi boppam ba ni seytaane ko man gàcce dikk na gàcce dikk na ndax kët bukki bu dabee ponkal ca doxin wala ca doxin wala yaa laytani yaa laytani lam lam attaxid fulanan xalila boo boo boo boo ca àggee gàcce am na boo ca gàcc àggee gàcce am na waaw